asalaamaaleykum sama mbokki internet yi amaana mbégte janoog yéen fii ci Warkha TV ci seen beneen émission conseil santé conseil santé tey nag li ma leen indil ñu nga koy woowee pomme cannelle mi ngi sax ci benn garab bu ñuy woowee acé au goût très délicieux nag boo ko gisee da nga koy jaawale loolu ñu naan korosol mais du moom am na ay ferñeent lu ci mel ni vitamine A vitamine C am na potassium glucide ak calorie ànd ak nag ay ngëneelam lu ci mel ni feuilles yi boo koy mën nga ko utiliser si li ñuy woowee góom plaie ak ulcère yow mi amee ulcère baax na si yow pomme cannelle ci di daw tamit c'est un antifatigue ça donne de l'énergie de lay sawarloo mën nga ko di utiliser souvent ba pare teg ci tamit c'est un anti-infectieux anti-anémique ak antibactérien ba ça facilite la circulation sanguine